ahajaban sëriñ masamba kenn nii fañtanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa molana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi alxuril mayamin wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin mbokk ni mbokk ni ñu leen ñu di leen ziar di leen baal àq leen baal àq leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru gën ak àdduna yonent bi alayhi salaatu wa di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li defoon ci ay ko guddik ku tedd gi suñu borom te julli di am mbégte lool tamit ci jataay bi di di fi euh, jotlante euh, ay ab xasida bu am solo boo xam ne kenn ci mag ñi toppoon Seexul Xadim radiyallaahu anhu moo ko def muy sëriñ ma sëriñ ma Sàmba so ngeen ko xamee sëriñ ma Sàmba Kan yi mu bokk ci mag ñi nga xam ne ginnaaw mun amee ak jegeñ ak jegeñaale ak sëñ bi lool boo xam ne xam nañ ko waaye ñoom mbokk googo dañ ko jaayoon jënde ko ak taalibe ba ajowoon sëñ bi aju aju goo xam gu mat sëkk la jeex ci moom takk ba tax na xasir gi ñu jot li ko tey jii lenn la ci luy wane seenu taalibe ak nangul ko nanguloon sëñ bi ak toppoon ko toppoon muy xasida boo xam ne mm, sëñ bi mi ngi ko way ci baxaru rajaz te ku nga xam ne mag ñi dañoo dañ daan tàmm ay rajaz ak basit di jigéen di way te daa war a luut maanaam li ñuy wax dëggum dëgg ci ñoom ak na ñoom way dañ koo jàppee moyen bu moyen bu ñu ay message waaye nekkul luy pik puukaréwoo ak ak di ko ndamoo ba di ca faaw wala yu mel noonu te xam na ne ku ne xam ne boo bëggee jàllale message moom baxaru yu mel noonu mooy li ci gën a gaaw mooy ndax moo ci gën a leer mooy gën a matale ñi ñu ëpp ci nit ñi tamit moom lañ gën di xam moo tax ñu fan faral di gën di wàcc rajas doon sax nag da nga gis tax ñu ci yeneen waxoor yi waaye bu ñu waxee loo xam ne bu ñu bëggee yoo xam ne day bëgg mu ay message yu jàll yu jëpp ci baxaru yu mel ni lañ koy way moo tax baxaru mi ngi ko way ci rajas bahar bi tamit xasida bi tamit eh, danaka man nga ne xalaat yi ci nek yu bari la donte ni donte juroom bayit lay tollool waye li ci nek ci ay ay khalaat ak yo ak ide ak i manam lu yema yemi la donte juroom bayit rek la eh, ba xasida moy aslamtu lillahi taala sarmada kulli mahal khadimi thumma ahmada له وهبت بالخديم والرسول كلي وما لغيره رمت وصول لله بالخديم والرسول لا غير كل رغبتي وصولي الله كلي والرسول ثم السبيل الله كلي ورسول للسبيل زادي وسيلة الخديم والنفول هو الكتاب يا إلهي حققي zala bil xadimi wa nabiyu xaqiq kon loolu mooy juróom abiyaat yi mu toll juróomi bayit bu dee ci bayit bu njëkk bi rek maanaam mën nga ko tënk ci ne danoon jébbal boppam suñu borom subhanahu wa taala di ko ànd ceeg seexul xadim radiyallahu anhu waxin waxin wi nag waxin wi nag mi ngi ko jëlee ci alquran alquran noonu lay tibbee أنا بور بني واخ بلقيس بمي توب تزيون تيال سليمان نيكو القرآن نتلي داني إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين جبلنا سان باب نيكو خانا موي بورم بندف يب تأند كوك سليمان سن ما سامبا نون لا واخي في تي ويدو نجكوي دا واخ ني جبلنا سان باب يالا سبحانه وتعالى سما ليب جبلنا كو يالا واي اند كوك شيخ الخديم ànd ko yonti bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu loolu wane na tawxiid ju mat sëkk-sëkk mooy jëbbal bàyyee bopp yàlla ah, ah, ni nim ko santaane mu mu mu jëfe wax mu jëfe ko noonu waxee ko noonu loolu lu am solo la ba foofu tamit dañ ci déggaale te loolu day feeñ ci day feeñ ci lépp mooy ne moom jamono ju nekk rek la muy def day bëgg di ko jaare ci Seexul Xadim radiyallaahu anhu loolu mooy xalaat li ñu mën a dégg moom jamono jone day da ngay ci biir bayit yi donte juróom bayit la amul benn bayit boo xam ne lu fetli na ci aju gum aju ci sëñ bi ak xam le na léppam ci moom ci moom la ko ci moom la ko jaare loolu moo feeñ ci bayit boobu nag maal xadim yi nga ne sax moom la njëkk tudd doo ko tudd yonent bi alayhi salaam te loolu tamit mën nañ cee dégg bu baax a baax lu neex a dégg la te dafay gëm ne buntam mooy sëñ bi moom ci lay jaar mu mu jaarale ko ci sunna si yoon bi alayhi salaam mu dem ci boromam moo tax jamono jone day gis ne bu tuddee yàlla day tudd sëñ bi doo ko tudd yonent bi alayhi salaam te loolu li ko li ñu koy dégg rek weesuwut ne euh, da ko jàpp moom ne mooy mooy wasila mooy buntam bu jëm bu muy jaaree jëm ci yàlla euh, di ko dëpp di jaar ci di dëppoo sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu bay du bay du njëkk loolu war na ci feeñ ci baax a baax taw baax tawhid tawhid mati tawhid tawhid feeñ na ci ndax war na léppam yàlla la ko jébal waaye tamit ak taalibe feeñ na ci ndax nee na yéen Seydou Khadim Rail lay aju moom lay àndal ci njëbal gi lépp mu ànd ak mu dox ci sunna si yoon bi alayhi salaatu wasalaam ci baytu ñaareel wi tamit day wax ne léppam may na ko yàlla léppam waxtoom dundam coonaam xalaatam alalam léppam may na ko yàlla waaye nag di ko jaaree nag ci seelu xadim radiyallahu anhu ak ci yonent bi alayhi salaam jamono ju ne gis nga day feeñaat foofu lillaahi bil xadimi wa laa xayru loolu noonu la mel kon daal euh, mu ne léppam may na ko lahu wabtu lahu wabtu bil xadimi wa kulli yi mu ne nag àgg ci kenn ku dul yàlla kon day mel kon euh, manam da jël lepp may ko yalla lam ci bëgg nak moy ag ci yalla ag hmm. ci yalla rek la soxla sox wul lenen kon leppam jox ko yàlla ngir lan ngir mëna ag ci mom muy lu am solo baytu ñettel wi bay dafay saxal ne euh bëgg-bëggam bëgg-bëggam ak ci càkkutéefam ak limi ñaan lepp suñu borom subhanahu wa taala la koy ñaan yalla rek lay ñaan waye nak man na tawasul nak ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu ak ci yonti bi alayhi salaatu wasalaam loolu nak mu deppok mu suñu wax na bu ngeen dañ ñaan ngeen ma ñaan udoni asajib lakum ne euh, sun borom mom rek lay ñaan loolu loolu la sallallahu alayhi wasallam ndax moy maye waye nak man nga jaar ci ñu bax ñi ngir seen barke sun borom nangu ñaan man nga jaar ci jëf yu baax def ko sa wasila sun borom nangul sa jëf ibu taxu ilayhil wasilat la wax su ngeen jëme ci yalla da ngeen wut wasila wasila ba moy ku baax tu yalla waliyu yalla wala jëf ju baax moo tax ne nak sama bëgg-bëgg yépp sama ñaan yépp yalla la koy ñaan nak waye nak diko jaare nak ci ali Seexul khadim radhiyallahu ak ci yunus bi alayhi salaatu wa salaam li ñu waxañ tambali rek mom gis na jamono ju nekk rek manam talib gi day feñ ne mom amul len lu muy wut te jiko jaara ci ki nga xamne moy mo yakaram yaakaaram adduna har musal khadim xadim radiyallahu te mom mi nga xamne mom mi nga aju ci yonent bi alayhi salatu lillahi bil khadimi war rasuli la ghayru kullu rahbati wa suuli su ko defee kon lolu fo uh, baytu ñeent ñetteel bi baytu ñentel lañ wax sax da ci wax ne yalla yalla moy leppam yàlla mooy léppam léppam yàlla la daraam génnul yàlla la wax yàlla mooy léppam kon daal moom su amee ngërëmul suñu boroom am na lépp su ko ñàkkee amul dara ndax nee na moom yàlla mooy léppam waaye nag pour mu am am am yàlla moomu nag wax na ne yoon wi mu koy jaar mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi alxuraan waxoon in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni allah fekkee li ngeen waxone ngeen bëgg yalla wërna ci yeen da ngeen ma top su nga defee suñu borom bëgg leen moo tax mu ne sama lepp yalla la mu la bëgg moom lay wut moom lay sakku waye nak yoon jaar nak tibbi alayhi salatu lillahi kulli waye nak war rasulu lis sabil aw yoon nak ku cay jaar te fasi dox ba nara danga soxla xañ na ku la say ku lay teete ba doo réer ba doo jàdd yoon wa da nga soxla tamit yóbbal boo xam ne daa tax doo lor ci yoon wi moom nag sama ki may ki may giide nag ci yoon woowu moo war nga xam ne yonti mooy yoon wi waaye ki ma ciy giidee ki ma ciy wommat ki ma ci ki ki ci sama yóbbal mooy Seexul Xadim radiyallaahu anhu zaadi wasilati zaadi wasilati alxadim sama yóbbal sama wasila mooy alxadim anuful mooy sama ndollin mooy sama ndollin bëy bu am solo am solo wax na ne moom yàlla rek lay sàkku sàkku leen waaye waaye ci biir ci biir wax ji xam leen na ne yàlla mi may sàkku kat mënu ma koo am te jaaruma ko ci yonent bi kon nag mooy yoon wi yoon woowu tamit mënu ma cee jaar baag fa ma jëm te amu ko ma ci omat ak ma ci jox yóbbal te mooy sayul xadim radiyallaahu muy muy lu am solo loo xam ne euh, ku ne mën na ko roy ci moom. muy lu jup lu jup lo xamne ku ne ni la wara xalat yalla rek lañ sakku waye nak kenn mënut am depo dëppoo sunna sunna yonent sallam jaaro ci sunna sunna yonent sallam waye tamit ah, lol tamit ñi xam ñepp jottu jotiwuñ ci ku nga bañ nga bañ reer nak ko xam ko xam wasila am su yobbal ko xam mo lay gindi mo lay tete lol moy dugal bopp yëpp kon lol moy yoon wi moy lu leer lo xamne ne Eh, manam bind bu mëna bu mëna a la ci ci suñ sama mi eh, muy lo xam lu leer ci bayitu ñentelo woowu bayit yu mujj da ci wax ne eh, da wax ne mm, day da ci ñaan dal comme ni ko baxé rek bu ñaar bu sa way bay jeexal day wat seen borom ñaanat daan wax ne borom yalla nga amal li ma ñaan lima li ma fi ñaan lepp yalla nga ko amal te jaaree ko ci Cheikhul Khadim gis nga ba tey jaaree ko ci barke kon dal ci wasila ci jaar barke Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ma ngi ñaan nga amal lima ma li ma bëgg ak ci barke ci ak ci barke yonent bi alayhi kon nga xam kon toujours ba tey gëm na suñu borom la ñaan waye nak mi ngi mi ngi mi ngi def tawasul mi ngi def tawasul ci Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu serignam di tawasul nak ci yonent bi alayhi salaatu kon abyaat la yoo xam ne juróom la waaye nag mënees na ci jànge yu baree baree bari jàngees na ci ak ommatu ci yàlla ci biiru njëkk ba la lam njëkke ñu jàng jàng ci tamit ak aju sëñ bi aju gu wér a wér a wér goo xam ne ngir fàttali ko tax na mu feeñ ci bayit yëpp bayit yëpp feeña ci jamono ju ne fu nekk rek sëñ bi lay jiital doo ko doo ko tudd yonti bi alayhi salaatu salaam ngir ne mooy buntam bi muy jaaree baag ci yonti bi alayhi salaatu salaam feeñ ci bayit tamit ne bëgg-bëggam ak ay defam lépp lépp lépp yàlla rek la ay yonti bi alayhi salaatu salaam ak seexul xadim amul benn bëgg-bëgg amul benn càkku def loolu ci sëñ bi yàlla yonti bi waaye nag feeñal na ci ak njaamam ci yàlla ngir fi waxa ne mom leppam yalla la ne wax na ne kulliyatuhu lillah leppam yalla la lol moy wonane ne moom jam yàlla rek la jam yalla dong la dara amul ci man ab cerlu yalla rek la lol ak ubudiyya gu mat sëkk la gu ma fofu saxal na ci mit ci bi ne ya, yonent bi alayhi salatu wasalam ku bëgg jëm ci yalla moy yoon nga jaar wa wax na ci bi bayit mu leer nañ mu dëppoo lay sun borom waxu rek ca aaya ba kon yoon yoon waa ngi noonu te mooy yoon bu ne yonent bi mooy yoon mooy nga dëppoo sun sunna lépp looy def nga di ko dëppaleeg si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbir yëpp biir bay saxal na ci ne euh, wasilaam ak yóbbalam ci mboolam li muy def ka ci wasilaam ka ci royteefam mooy mooy seexlu xadim radiyallaahu amul benn royteef amul benn wasila amul fenn fu mu jaar kurut yoon kurut seexul xadim radiyallahu anhu mu jeexale ko nag ci ne la ñaan lépp tamit euh, xëy na daana def lu baax lu nekk waaye ay jëfam li ñu baax baax doyu ko kami tawasul ci moom bëgg caa jaare ci barkeem mooy sëriñam seexul xadim radiyallahu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir suñu borom amalal ko ay bëgg-bëggam yëpp may ko ay càkkuteefam yëpp kon loolu ci gàttal mooy abyaat muy weer yoo xam xagn da gatt na waye lamone na maanaa yu bare bare bare bare ñu mën ci jangé sun mag ñi sen tawhid jang ci senu talibé ya jang ci senu dëppoog sunna muy lu am solo ab julli rek la am tawhid sun borom bañ ko bolé dara dëppoog sunna baye bi da loolu def lepp nga deug dëppoog sunna ahajaban serigne masamba kenn fàncanne xutbu ya falañ ko tànne moo gëm sëriñ Tuubaa te gëm rasuulu te am tasawufam baam wusuulu